immobilier bu ko faits. Yen, ngeen 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jay kër ci Ramadan الوارث جند العزيز الغالي لم يعد من يغترى قوما لقلبه مرا وليقود في الحرارة ربي يا ما لم يجعل

ala ma في الملائل مكملي الرخينا وجزاني على غرام وجزالي فتغى

me. لي وكفاك لفتني هني وكل مني خاني إني أبي قل يا جانب عمر مالي وزالي ذنبك في كل ذي أزل فنيتي خير كرمي وكن مريد يا ولا تزوجي لما في العراق ورافع رتب كاسم الكراب وآله وزعبي والتعمدي عزى نسام عمدا معن صمدي سل بتسليم على سلف الرجي بدر تمام وكريم المحرج وآلي وعز عام الكملي وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي في المساء يا أحمدا ربنا صل وسلم أبدا على رسول وسرور أبدا الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يغرأ ذا نزام في كل شمل وآله وصحبه واغفر لمن يغرأ ذا نسام في كل سماء وعبله جملة ما تختاره لو لديك إنك المختار ما علي من ذنوبي يا ماليا بجاي سنوبي وعب لمن يقرأه أو يكتبه خير من يا من تني كتبه وابل لمن عفسه أو صلاة بأي وجه بالنبي أملا كتبت خلي الأيادي عشان بلا سن ولا جوا ولا خرر ولا هدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت عبدي هزمة من العتاب في كل شيء شائرا وباتنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعل نفحا لسوي الأمسار وخيرهم يا واعب الأنصار يا سل رادي وصما سل بلا ند حد على من قمتي قد قبلا محمد والآل وزعبه في الحال والمعاني وسلم محلي واغفر يا غفور لغاري وعلي بي نفور وجل روف النجام شرمدا بسارة عزيمة لعمدا وسليا وسلما حليه آله ومن نمي إليه وابع به خبل تاج لحين إلى زوا خاري أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلخ يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يقبته به سواه يا جميلا يمسته يا ذا البلاد والحبال سليا وسلم على النبي وكليا في آلي وزعبي وترفعا إليك الزحي بالرضا يرتفعا يا ربنا سل وسلم سرمدا على كريم كله خط مدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا زسما وآلي وزهبي وصحبه وتجحلي سانز مقارخا بي ينتعني العالمين يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار بالرسل من إقبلن صلاة قد لبست نظما لوجهك يا من قد معك سلي فاقبل نشامي وضحي كله كرما ولا تردن لا يادا لي من العمل فاقبل حملني فضلا لا مناغسة وخذ بخير عناء لي بعملي اذكر بفضلك زاهي والريا النبي يا من به سر زاد ولمن مني ملكا علي غير صلاة منك عن قبلي وارفع نسامي ساجدا وتكريمة ولا تردنه يا مصيب غيللي النساء النجام إلى زي سعاب غدا ولا تردنه يا مصحب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بعق وجهك حق لرجان لي يا ربي كن لي وخذ لي بردا غردي وما التمس بجاه المنتقان لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرن بالنزم أفضل الرسل صل وسلم على المختار بالكرماء وبصرا بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب السماء والسلام الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk yi ñuy الله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokk yi jullit yi mbokk yi talibe yi di leen akadilin àq di leen siyaare bu baax bu baax rek di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex moo di ni mbokk yi dañoo am lu ñu woon ci mi ci ñi nga xam ne ñoo war yore wàll gi di ñoom suñ mbay ñi ngi wax dëgg yàlla def nañ lu baax ñu xawatalee wax lañ waaye nag teewut danañ ci jéem suñu kant lay kàttan rek mel ni dañoo waxoon sëriñ bi ak Mbàkke Kajoor ak lenn ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ci li ko yóbbu Mbàkke Kajoor ñu xam naa ne tënk bu gàttil waaye nag lu ci jub rek ñu sant ko yàlla lu ci dëngit ñu ñu ko xam ne du suñu man-man li ñu gëj def la daanaka wax dëgg yàlla da depuis 2002 ba léegi tey micro di waxtaan moom yaakaar naa ne defuñu ko fi benn donte la nag xam naa ni xawma kan moo ma kalaam ak jawriñ yi waaye ñu ngi ci jégalu bu baax a baax a baax mu mel ni ci njàngaleem sëriñ bi ci li ko yóbbu Mbàkke Kajoor ku nekk xam na ni ci taarix bu yàgg la ndax sëriñ bi mi ngi juddoo Mbàkke Bawol loolu ci wër bi sëriñ si daan def euh, ci Poroxaan jóge fa dugg Gàmbi ñëwaat Mbakke dem xur Mbakke ba ni sëñ Mor Anta Sali Anta Sali Lat Joor sàkku ko foofee ca Kajoor ca Saalum ba ni ñëwee Paasaar ba sanc Mbakke Kajoor mu mel ni kon dañ ciy def ab tënk bu mu mel ni kon mbokk yi ñu dégg ñu ni li ñuy jubloo waxtaan rek muy sëriñ Mor ak Mbacke Kajoor ak sëriñ bi lam jot am Mbacke Kajoor ci ginnaaw bi sëñ Mor jógee kon it foofu rek dañuy tënk waxtaan wi sëriñ Mor Anta Sali mooy waajuru Cheikhuna Ahmadul yi moom ñoo ngi ko denc ci deqale di doomi mam maram astafurlah doomi mam Balla ñoo ngi moom ñaari at la am Mbàkke Kajoor daal di wàcc ab liggéey waaye diirub ñaari at yooyu mu am Mbàkke Kajoor tuuti ñëpp ñu bàyyi ci xel ci ki nga xam ne mooy suñu sëriñ Cheikhul yi sëriñ bi ku yàlla joxum xel la ba noppi yàlla dimbali ko loolu xel mi ñaw mu doon woon koo xam ne xam-xam moom li ko ci suñ boroom rotal amul ci kenn ci ku njëkk ak ku mujj koo xam ne mosees na koo gis ci moom kon sëriñ bi dafa jël dundam gépp bi mu jàngee mu ngi mottali am jàngam ci baayam waaye bi mu jàngee ba noppi dafa jël dundam gi lépp liggéeyam xëyam ak gontam yëpp jébbal ko suñu morom sëli musta juwoo moom musut di sëñ Mor di wax nii muy wax lay déedéet ak xëyam ak gontam lépp da ko jox sëñ Mor Anta moo doon sëriñu nit na ba sëriñ Mor Anta Sali moo ko jox war doo xaadir kon kooku xam nga kon sëriñ bu wér sëñ Mor Anta Sali doonoon na koo xam ne nii ñuy gëmee sëñ bi di ko ni wege di ko ni bëgge ay waajuram ñoo ko gën a bëgg ñëpp ñoo ko gën a wegit ñëpp ñoo ko gën a sopp ñëpp cofeel gii nga xam ni sëñ góor a lay mii maanaam moom da ëmm ci sëñ bi nga xam ni boo ko doon wax ni ko nangam si sa cofeel daa maa ngi sax boo moytuwul moom da nga ko yàlla dóor bi su am dóor ci moom sëñ Mor Anta Sali mu gën a bëgg ñëpp moo ko gën a fonk ñëpp noonu la demee ci Mame Balla ñun ñooñu ñëpp nga xam ne dañu jamono yi ci ñoom nga xam ne gis nañ noonu la ñu amee cofeel ci moom ba ci soxna jaaram yi waajuram donte la dund nañ dund bu gàtt kon sëriñ bi xëyam ak kontam yëpp da ko joxoon sëriñ bi yooyu sëñ Mor mus ta am ak bëgg ci leen mus ta jéem a laxasi di jéem jàng yi ndax bokk na ci li nga xam ni moom la nit ñi laxati jàngi moom la ñuy laxasi ñëw ko Sëñ Mor Anta si que Sëñ Mor Anta Sali moo doonoon daara joo xam ni fépp la nit di joxe dañuy jéggi jéggi de sax di ñëw dafa jàng si kon kooku amatul muy dugg di laxasi waaye sëriñ bi cofeel boobu ba ci ñi nekkoon ci biir daara ji dañoo am cofeel ci moom ba mujj na jàng ci Sëñ Mor Anta Sali sax bëggatuñ ko dañuy mujj di jàng ci sëriñ bi ndax cofeel yii daje na ci muy sëñ Mor làmmiñ bi daa baroon te bëggul mu lay wax di la jàngal di la wax di waxaat sëñ moor bëggul loolu li làmmiñ bi lu mu barbar noonu nag sëriñ bi dafa dafa làmmiñ bi daa leer ba noppi araf fu mu lay wax araf bi day dugg ba ci sa biir maanaam bu la ko sëñ moor jàngaloon nag ko dégg waaye dégg gi nga koy dégg bu lu ci sëriñ bi loolu nag leneen la loolu moom leneen loo xam ne mayu yàlla la ci sëriñ Cheikhul Khadim waaye teewut sëriñ bi ak bëgg waajuram googu ak foog nañ bàyyi xel ci euh, mayu sëriñ bi fu fu sori la commencé sëriñ bi ñu ko jug ñëpp ñëpp ci maamam ñëpp ay wàll yu dañ ay xut bi sama dañ ak si sëriñ borom bi sëriñ sëriñ bi ku yàlla waajal la da koo waajal sëriñ bi amul benn tas nekk gi mu nekk ak sëñ Mor Anta Sali loolu tax na ci fi ñu ciy tàmbalee rek mooy sàmbalaw bi ku ne xam ne ni moom mujj ci buuru Kajoor yi sopp na sëriñ bi sopp goo xam ne ni sëñ Mor nekk woon ak nijaayam noonu la bëggee woon ñëw jël si sëriñ bi laaj ko sëñ Mor Anta Sali waaye ci teggin googu rek laa bëgg ñëpp ñu jànge ji donte la sëriñ bi mooy suñu sëriñ waaye nag mooy suñu royuwaay ci moom lañu war di jàngate lépp di ci roy di ci xool muy bëgg sëñ Mor Anta bëgg goo xam ne fonk ko mu doonu sëriñam mu gëm ko téewut bi sàmbalaw bi ñëwee dagaan loolu sëñ mor sëñ mor ci bëgg gi ak fonkeel gi ak fonk gi mu fonk dani nañ ko woo ñu laaj ak warmal gi dani nañ ko woo ñu laaj ko ba xam bi sëñ sëriñ bi ñëwee mu woolu ko sëñ moor bi mu toogee sàmbalaw bi toog ñu bokk toog ci mu sàmbalaw bi toog ci lalu sëñ mor ànd sëli te loolu sëriñ bi xalaatu ko waaye da ngay xool foofu warmal ku yàlla warmal wàññiwu dara waaye sëñ moor bi mu ñëwee mu xamal ko li kii bëgg da ko wax ni ko waaw baax na xanaa bu génnee dinañ ci xool fii sëñ góor mi bu woon doom di ko wax lu munu danañ ko bàyyi munuma ko waaye xoolal sëriñ bi ci teggin gi du du baatin du lenn saayir su wér la wane kon waajur dañ koo war a wormal dañ ko war a màggal waajur ku ku yàlla wormal la waaye foofu xoolal sëriñ bi ñu ne wuta nu nga wuta tontu sàmbalaw bi foofu sàmbalaw bi bi mu génnee dafa fekk sëriñ bi jàpp ci ci toog ci der bi bi sàmbalaw bi ñëwee ngir àggale waxtaan wi ak moom moom da ko dafa wàcc ci der bi wax sàmbalaw bi ni ko toogal sàmbalaw bi ñi mu wutu toog ci derub sëñ te ñi mee toog ci lalu suñu moral sëriñ mu xamal ko ni ko moom mënut a bàyyi kër bàyyam gi nga xam ne ñëpp dañoo laxas ngir wut si ci kër bàyyam gi di fi jàng si xam-xam moom mu di ko fi bàyyi dem di di dem di dem feneen sàmbalaw bi woo xam ni sàmbalaw bi am na ñett ñu ko toppoon ñett ñooñu ku ci nekk sàmbalaw bi amee na la téeméer neexale ko sëñ bi ngir jàpp ni sëriñ bi bu ko neexalee loolu dana ko gis ba tax maanaam mu dem sëriñ bi ni ko waa baax na jërëjëf moo tax nit lu la jëfal lu mu tuut tuut jërëjëf moom wàññiwul dara lu saaku fees fees xaj na ci sëriñ bi sant ko ba noppi jël fas woowu ni nañ ko ko jaayal am ku ci fay ñetti téeméer sëriñ bi da ko daal di faye bori sàmbalaw bi yooyu ñett ñooñu kon sëriñ bi gis nga ni mu ragale àq ak ragale nu mu néewale doole ni néewal doole nit ba noppi tabe sëriñ bi amul ci maas ci ndend kenn kenn ba àdduna sa ba léegi si kuñ mës a wax ci ak tabe sëriñ Tuubaa la gën a tabe ku mës a wax ci yërmande ëmbal yërmande kuñ mën a wax sëriñ Tuubaa la ëpp gën a ëppal yërmande ndax irham jami waraa moom yàgg nañoo bind yàgg nañoo wax waaye mel mu Seexul Xadiim rek moo ko wax mennum Seexul Xadim rek moo ko wax kon loolu li liñ ci liñ ciy bëgg jàngale tuuti ñu xam ni bu dee tabee ab murid daa war a tabe bu dee ay teggin ab murid daa war a am ay teggin waaye bu dee am fulla ba kenn mënulaa jënd nañ bàyyi xel ni foofu nañ ci jànge fas wi joxewuñ ko ngir yàlla dañ koo joxal ngir neexal ngir xol bi nooyu ba mën a toppi kii sàmba sàmba tey ku ma tegaloon fii téeméeri million boo moytu ni ma tegal micro bi xam naa ni dinaa fexe ba doxal ngànt ba wala ma sëqat sëqatlu ba coro xam maanaam jël téeméeri million yi waaye nañu bàyyi xel ni ngor moo ëpp doolee lépp loolu lépp nit sax bu amee ngor rek bu ñàkkee ngor ñàkk na lépp waaye nag bu amee ngor lépp lépp lépp tee na ko kon sëriñ bi jàngal nañu foofu loolu ci ci ak tàmbaleem bi loolu bi loolu jàllee mu continuer ak waajuróom ba noonu mujj daara ji nag lool gën ñëpp it gën koo bëgg daara ji mujj ci loxoom la nekk ci loxol sëriñ bi la nekk mooy jàngale mooy def lépp waaye noonu la bëggee woon sëriñ sëriñ suñu Mor Anta Sali noonu la daan di liggéey nag bu bu waxtu tool jotee loolu lépp wax na ni ku mel ne sëriñ Massamba Diop moo mujj ni ko sëriñ Massamba Diop Sam moo mujj ni ko sëriñ bi bàyyil may bàyyi sama waar di bàyyaale sa waar te yow nga nekk ci daara ja di ma fasaleel loolu ci bëgg ñooñu maanaam seenu bëgg bàyyiwuñ ba sëriñ bi woote ñu di ko dooru bëgg ñoom dañ koo bëggoon te sëñ ma Massamba Diop wax nañ ni ñu bari wax na ni moom féete mag sëñ bi ak sëñ Adama Gueye waaye teewut noonu lañ ko bëggee woon soppi ko ni moo tax ñu njëkk ña ñoo gënoon a bëgg sëriñ bi sax dañuy bu ñuy wax ndax moom dañ koo bëgg te feeñalu bu dara waaw kon loolu it ñu jànge ci ñu ñu jànge ci bu baax sëriñ bi sëñ Mor ñaari at la fa def ñaari at après ci la koy daaneel ci ko daaneel sëriñ bi jàng fa bàqara euh, kaamil alxuraan ci ci bopp bi sëriñ Mor wàcc wàcc liggéey bi sëriñ Mor wàccee liggéey loolu sëñ Alaaji Mbàkke lim ci andi defe naa mille mille mille trois cent la ci atu gàddaay gi tombeek mille huit cent quatre-vingt loolu ci la sëñ Mor Anta Sali wàcc liggéey bi mu wàccee liggéey nag ñoo ngi ko denc deqali ndax sëriñ moor moo ko sàkk woon ndax diggante kajoor foofu dafa bari foo xam ne deret yi deret dafa yàgga tóoru ci deret ci caddo ndax sëriñ bi seexlu ko ba bëggul ku ko suul ci ci ci deret jooju wàlliwu kamal kamal la bari na nag ci murid yi ñoo xam ne dañ koy umpale waaye sëñ moor cër bu nit di am yàlla am na ko waaw ñu bàyyi xel loolu bu baax ndax damay wax ni maanaam liy soqe ko ci ci ci nit pour nit judd moom ci ci ci kii lay nekk ci góor lay nekk te sëriñ bi du fekk am yambar mukk muy doon wajuram sëñ Tuubaa am yambar du ko andi mukk góor yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ku am maqaama ci suñ borom fees dell mooy mën a doon bàyyam moom kay doon waajuram sax waajuram moom day fees dell ci yàlla kooko kay doon waajuroo moom waajuroo moom day jeex takk ci yàlla door ko mën a andi noonu la càllaleeg sëriñ bi toppee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li sëñ di wax rek kuy ku ñuy tëkkale bambaak sëriñam waaw waaw waaw waaye loolu moom yàllaa ko jagleel sëriñ Touba lu yàlla def nag la ñu wax ko rek waaw sëriñ Mor Anta Sali bi mu nelawee lañ ko daal di waajal yóbbu ko sëñ Mouhamadou Ndoumbé Mar Sylla góor yàlla gu mag doonoon boroom xam-xam bu bu tedd moom moo ko jullee daal ñaanal ko ca foofee nag ca jullee ga coow xaw na fa am ndax ñu ngi koy waxee ci xasida googu nag xaaloolu yarkan li abwaa salaatini loolu moo ko indi ci la sëñ Masam euh, sëñ Mouhamadou Ndoumbé Mar moomee ci la woowee sëriñ bi ci ni ma la waxee ne gis nga mag ñooñee ñoo gënoon bëgg sëñ bi ñëpp gën leen na sopp ci lañ ko daal di woowee mu ñëw mu xamal ko ni ko damaa bëgg bu ñu jógee fii ñu ànd dem ca laajoor ma dénk la ko mu teg la fa mu tegoon sa baay waaye xoolal sëriñ sëriñ bi ne ko man du ma ci kenn ku dul yàlla man yàlla rek laay def wéeruwaay sama aajoot yàlla rek laa koy laa koy laa koy dagaan waaye duma ko dagaan benn mbindeef foofu liñ ci war a jàngi ñun ñépp muy ñun ñëpp it foofee sëriñ ba nekk dañu faa joxeñ ngir ñu war caa jaar muy ñu wéeru ci yàlla te bañ a wéeru ci kenn kenn kenn ku dul yàlla surtout ma jamono jii nag ak fi mu toll ñu bàyyi xel ni lu baree baree baree bari ak lu mu ñëw ñëw ak lu mu doon intérêt bu ñu suñu wala mu tax ñu ñàkk suñu ngor maanaam nañ ko bàyyi fële te jàpp sëriñ bi ndax moom rek moo mën a kon it nañu wéeru ci foofu bu baax a baax a baax dontele foofa nag coow yi bari na mbooloo mi def na ñetti kii kat dafa am lu ko jot ci ak nitadiku ñii ni di waaru ci yàlla ci nit ku mel nii ndax amati na ndax nit yi tasawuf noonu lañ ko xamee ñenn ñi jaaxle ci moom lool léegi nag jamono boobu coow li bari na léegi nag ci la mbooloo mi xaajale ko ci lañ Lat Joor mujj bàyyi xaal yi ñu ci la ci bàyyi xaal moom mu nekk fa léegi sëriñ bi continué loolu at ak ay weer ci daara ji topp ndigalal waajuram loolu bi sëriñ bi continué continué nag ak daara ji ci at ak ay weer ci la ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa dikkal ci wootem boobee nag ci la ko dikkal nag daal di mu daal di woote daal di nag képp koo xam ni maanaam jàng rek rek moo la indi woon ci daara ji mën ngaa seeti feneen foo jàngi képp koo xam ne nag lii ma namm te aw fi maanaam doy na la bisimilah ñu dem te loolu jaayante moo koy indi moo tax nag foofu nañ fi taxawloo bu baax a baax a baax sëriñ Adama Gueye wax na ni moo njëkk a jébbalu Sëriñ Tuubaa waaye naka la jébbaloo ci sëriñ bi dafa dem jaayante yi kon nit foofu war nañ fee mën a taxawaloo du am muri du dangay sol mbase bu xoy-xoy mu rëy nga teg ca maxtu teg ca mbaxanam laafa mu ñëw nga takki weer dóor kaalang basee bu rafet maanaam mu rëy déedéet ak murit da dem nga jaayante ji jébbalu ci kolo day koo xam ne mën naa laa teg ci yoon yàlla mu sa aslantu nga di ko nemmiku di ko siyaare ji lu nekk loo nekk mu xam ko mu di teg ci yoon yàlla waaye du caggee ni mën na ñëw bokk daayira ñëpp di liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye nag ku ci nekk war naa am foo foo ngoy waaye nag bu dee mbooloo mi yëpp it ku ci nekk am na fu muy ngoy ba noppi yow te amoon foo ngoy ku ci nekk bu bu bu yëfi yëngoo maanaam ba daanu di ñëw ku ne xam na ni bu daanu day ñëw ku ci nekk foo mën a ngoy rek ngay ngoy yow fooy ngoy te loolu dafa bari léegi lool ci murid gi dañuy riir rek ànd ci waaye nag kenn koo xam ne danaan la kan mooy wasilam déedéet te xaside yi sëñ bi bind na ko waaye waxul woon nañ jaayante xaside yi ab sëriñ da ngay dem nga dem jébbalu ci ab sëriñ mu bu la doy mën laa teg yoonu yàlla mu doon sa wasila nga jokku ca mu la xam nga yóbbu sa àddiyee nga di ko liggéeyal kon nit loolu ci la ñuy waajee tab bi nii sëriñ bi wooteem boobu ci la daara ji yëngoo moom ñenn ñi dem ñenn ñi jébbalu wax na ni sëñ ji Mbàkke moom li mu wax sëñ am ndaam Abdourahman Lo dañoo wax ni mi ngi ko fekkoon mbaakol waaye bi mu ko fokkee mbaakol it ba mu déggee wooteeb sëriñ bi moom dafa dox ay kilomètres ñëw jaayanteeg sëñ Tuubaa delluwaat sëñ aadama Gueye sëñ Daaru Asan Ndiaye sëñ Ibrahima Say Ndiaye sëñ Masamba Diop sëñ Masamba Diop moom ba mu jébbuloo sëñ Daaru Asan Ndiaye bëgg a bokk ca ñay laxas ngir jàngi moom da koo xamal ni ko jàppoon naa ne fu ma dee bu fa dara nekkul da nga fa dee loolu mooy ak xarit waaw maanaam da fexe ba ki ngay nekkal mu doon lu dëggu ci moom nga xam ne bu dee nga dee waaye fii bari na gaa yoo xam ne Moussa Ndiaye ak Abo ay xarit lañ waaye tey bu Moussa Ndiaye naroon naa am benn ko Abo danaan foy na li balay xew-xew moom maa mu door a delloo naan ci sama waaj loolu loolu du dara du du dara moom du dara ci la sëriñ bi nag takku fobu daal di jóg jëm ca jaayante googu mu jaayante te wax na ni euh, sëriñ bi yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ko ne ko sëriñ bi daal di jël loolu moom àggale ko ci daara ji te li ngay xamal ni la sëriñ bi nekku ci di commentaire di dara ba mu waxee li ko yonante bi sallallahu alayhi wa yokku ci wàññiwu ci loolu la daal wax ñëpp bàyyi leen ak seen bopp nag ñoom ñëpp ñu xalaat ku mu doy nga toog ku mu doyut nga dem seeti leneen lu la doy ñamu doy ñamu doy sëriñ bi ñanga xam ni loola doy na leen ci loolee yonent bi sallallahu taala alayhi wa dikkale sëriñ bi ñu toog ànd moom ci la sëriñ bi nag daa jaaju ànd ak ñoom di leen tarbiya ci turu yàlla di leen liggéeyloo di leen awale ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu tarbiya teewut ñi war a jàng dañuy jàng ni ko xamee ñi nga xam ne dañoo romb jàng te dañ leen di tombal di leen soññ ci njàngale mi ak tarbiya bi loolu lépp dañ caa continuer waaye nag teewut sëriñ Basiru mi ngi koy nettali sëriñ bi weeru koor bu musaana ñëw képp koo xam ni wóoroo woon sëriñ bi du la liggéeyloo waxtu julli saa bu jotee liggéey nga continuer di liggéey te yamoo foofu maanaam sëriñ bi day wax ni fan la tolloon bi waxtu julli yuy jot ñu ni ko fii la tolloon ñu ne nañ ko dindi ba mu set ñu sànni mu commencé waat foofu jeex tàkk nag ci yàlla ay nitam ñooñu dañoo mujj ñëpp dañoo jaaxale ndax ay nitam ñooñu dañoo mujj soppeeku mel neneen bokkuñu yeneen nit ñi teewut sëriñ biy dox ci loola waaye xam nga nit saa bu amee ay soppi dana am ay bañ rawatina yoon wu wu baax lu baax loolu yàlla da ciy dëxiñ loo xam ne day metti lool tar lool te niiw ay soppi sëriñ bi bi mu joxee ci loolu am na tuuti coow loo xam ne mi ngi amee foofu ci ci diggante Lat Joor ak Seexuna Ahmadul Xadim ndax Lat bàyyi xaali ak ñeneen ñoo nekkoon ci atti waaye Lat Joor dafa am ab mbokkam moo xam ni dafa bokkoon ci sëñ bi xare bu amoon ci ci kilifa yi sëriñ bi nekk Jolof léegi nag buur yi attaqué Lat Joor attaqué ko ni day woote xutbu sama day woote ab yonente bi muy woote ab yonente nag ñu ni day ñu tuumaal ko Ahmadou Seexu léegi nag loolu mu indi léegi ñu sangu ko ab xare boo xam ne xare bi kenn waajalu ko dañoo jékki-jékki rek ñoom waa dëkk ba jékki-jékki rek tàkk kii yi tàkk xale bi tàkk ñu daal di rey ñenn ñi rey ko ñenn ñu jàpp leen ay jàmm séddale ko Ibrahima Kodd moomu bokkoon nag ci mbokki Lat Joor yooyu ñam ci amoon Ibrahima Kodd yëf yi leeruk sëriñ bi tabbi ci ab xolom mu dem jébbalu ci sëriñ bi. bi sëriñ bi nangoo ak jëbbalam da ko waxoon ni ko la nga amee woon ca xare boobee anam jaam yaa ngi ci jàppee mu ne ko ñii mu ne ko bàyyi leen ndax duñu ay jaam. mu ne ko ana alal jang ca jang ca amee woon mu ne ko mu ne ko lépp na nga ko delloo léegi nag loolu dafa indi ab jam-jam ci kilifa yi nga xam ne dañoo atte woon loolu ni dafa woote woon ak yonente léegi nii dagan na ci ñu jàppale ni jàmm yooyu xam nga da daal indi jiixi jaax léegi bi mu indee jiixi jaaxa nag coow li xaw a bari Lat bind ab leetar Lat bi mu bindee leetar di woolu sëñ bi sëñ bi ñëwut waaye leetar ba mu mujj bind nga xam ni ku ku ñuy wax sëñ Adama defe naa sëñ Adama Fall dafa bokkoon ci waa Jolof yi léegi jébbalu woon ci sëriñ bi moo mujj yóbbu leetar boobu leetar boobu mi ngi ci bind ni boroom xam-xam bu toog ci bunti buur mi ngi mel ni weñ wu toog ci ay ginnaaw kër léegi nag bi mu bindee loolu la bi mu agsee ci lettre bi ñu jox ko Lat Joor Lat Joor da ko jox bàyyi xaali bàyyi xaali liir ko daal di daal di inna léegi bi mu waxee loo xam nga loolu daa rëy léegi bi mu waxee loolu Lat Joor ni ko lu mu wax ndax xam na ni moom li ko wér muy kim xam waxam du sedd léegi bi mu ko waxee loolu mu ni ko yow koy waxulul waxulul dara ndax yow yaay weñ wi ma maay li ci des léegi kon man la sëñ bi jubloo wax léegi nag foofu coow yépp daal di jóg waaye nag ci ci tuuti ñu leeral bàyyi xaali fi fi ko sëriñ bi tolloon maanaam coow li bi mu baree ñu attaqué pour mu bëgg mu dal ci kaw sëriñ bi moom bàyyi xaal yi dafa gàntal bàyyi xaal yi ku xaritu sëñ Mor Anta Sali la woon waaye ku bëggoon sëñ Tuubaa la ku ko fonkoon la ndax yaa ngi dégg li mu nett la muy bu sëñ bi musaana way day dem ca moom di ko ni ko xoolal ma ba xam ndax jub na wala jubut kon kooku xam nga ni sëriñ bi tegoon na ko fenn moo tax bàyyi xaal yi ku amoon ndimbal la ku amoon basior la ba noppi doona nit ku baax di boroom xam-xam mooy waajuru sëñ bay Jaxate ñu baree bari umple nañ ci murid yi ni moo jur sëñ Mbay Jaxate donte ne nag sëñ bay jaxate du taawam am na ay mag waaye mooy waajuru sëñ bay jaxate ba tey jii sëñ bay jaxate ni ay doomam nekk ay morit noonu la ay magam yoo xam ni léegi ñoom ay tijaan lañ waaye bàyyi xaali moom ab xaadir la woon ñu baree bari ci mag ñooñu ay xaadir lañu war booba tijaan tasaaroo gudd noonu léegi nag loolu ci lañ continuer sëriñ bi ba mujj bàyyi xaali musa ñëw foo xam ne ànd ak laaj joo dafa jege seriñ bi waaye nag ñu bàyyi xel ci ku la jàngal dañuy bàyyi xel ne sëriñ bi dafa wax ne sa sëriña daanaka taxawaay bi sa waajur di am day am taxawaay boobu comme nag jàngal na sëriñ bi ay ay ay ay araf léegi nag sëriñ bi dem di ko siyaare ji taxaritu waajurum la mu sàmm ñaar yooyu yëpp lu néewu néew ci jamono ji la mooy sa xaritu waajur donte la sa waajur jóge na fi na nga sàmm kóllëre mu amoon ak sa waajur loolu dafa bokk ci kóllëre gu ba tey ci diggante waajur ak doom kon loolu ñu góorgóorlu ci bu baax di ko di ko bàyyi xel loolu ci la jataay boobu ci la loolu leere bi ñëwee ni ko ñun lay taay gi nungu cee toog ay tegg na mayu ko mu continuer jéggulu léegi nag bi mu naree dem xamal ko ni ko dama doon siyaare ji laajoor ni ko xam naa ni man andiwuma la fi moom waaye nag comme que amoon nañ ab dig woo xam ne nañ ko leeral digg woowu laa bëgg mu ne ko bàyyi xaal yi laaj ko ci leeral ko bi mu ko xamee loolu laaj ko bi bàyyi xaal yi leeralee sëriñ bi sëriñ bi ni ko waaw man ne li ma jaaxal dafa am ndax mën naa tontu sëriñ bi jékku-jékku daal di tontu waaye da ko laaj ndigal mu ne ko jox naa la ndigal nga tontu sëriñ bi door a ñimee tonk xoolal sëriñ bi xoolewu ko ni bàyyi xaalim ji ko waaye waajur la ko bàyyee xel ci la ko bàyyi xaali joxe ndigal mu laaj ko ni ko ahmadu seexu damay laaj ba xam maanaam luñ ko ci luñ ko rayee mu ñu ko doon woote ab yonante mu ne ko ñu ko wax mu ne ko mu ne ko waa kajoor mu ne ko waa kajoor nu ñuy doonee ab noonam di ko àtte bàyyi xaal yi la mu ko tontu mooy yow daal dana doon xamal yàlla far nga jiituñu ci yàlla bi mu jógee la ko laaj joor ne ko naa mu ni ko li ñuy wax ni dégg jànji du tee góob sa tool mooy sëriñ bi boo ko dalee ci kawam hmm, doo ci amee ndam te bu dalee sa kaw nga yàqu kon nañ ko dégg dégg ab jànji kon sëriñ bi noonu la ko yàlla terale noonu la ko yàlla yëkkatee noonu la ko yàlla kaweele yàlla moo ko njëkk a teral ñi mu jamonoon teel ñëpp te suñ borom dimbali leen may leen it nungul nañ ko loolee kon noonu la fa sëriñ bi nekkee ab diir ñaari at après jóge fa ci la dem ci nijaayam ci magam sëñ euh, Mamor Diarra nek fa ab diir kon comme que loolu lañ ñu waxoon ci kii bi xam naa ne dañ koy tënk rek ndax jotaay bi waaye loolu lépp liñ ci bëgg a jàngale nag muy liñ ci wax ñu ci xel toujours nañuy xel bi liñ ci mat a jàngale ngir mu ñuy ci suñu ñu di ko bàyyi xel bu baax di ci góorgóorlu li ci des mooy xam naa ni temps bi xat na te waxoon nañu sëñ euh, sëñ sëñ Mouhamadou Lamine Bara waaye xam naa ni loolu est-ce dañu bàyyi ba beneen ba beneen yoon rek ñoo ngi jéggalu bu baax lu ci jub ñu sante ko yàlla lu ci dëngit ñu jéggal ñu ko te xam ni ku amul xam-xam mooy wax ak yéen rek asalaamaaleykum wa rahmatullah allahumma وعلى آله وصحبه وسلم سكر رافع سكري لرب كريم كان سكارا وارتجي منه في دارين أبكارا سكري لرب كريم كان سكارا وارتجي منه في دارين أبكارا كتبت سكرا له ما خدر جود به كوني سيرا وسكارا وسكارا وجعت وجهي في سار النبي سندي للأكرم الرافي الوهاب سكارا رجوت منه تعالى سكر عملي ورفع اليوم عني نعم خفارا رجوت أن يموت صلاتي جملتها عني وتسخيره لي دهر كفارا إني أخاطب في البار مغتربا ولم يسل جل قهارا وجبارا فجعتني ربي بلا لا يعبليان عاد للبرر لي كل من بارا على النبي سلم يصيم بالكرماء واربح وسني بعد الرف أبكارا الحمد لله وصلى بدا على الذي بي لنا الهدى بدا الحمد لله وسلى بدا على الذي بلنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وسابي سوي النوال الوالي هذا وإن اليوم سوت وسني له بأسماء سوي التفضل فقلت يا خريب يا مجيب صل على الذي بي تجيب وقبل بنا اسمها يا كريم وابل من بي يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم لخبر سنوبي وكفن الرجيم وكن بموسى وبجاليسا واقيني دنيا واخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله سمى عليهم ليب إيمانا قد صاب الإسلام ولسانا بعرمة الشديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان حق النورين وبأهل الوالد سبتين هب لي في دنياي ما أخرايا النور والغلو والمسايا بعقدلات وبالزبير وقسان النجني من دير وبسعيد وابن عوف النجني من كل ما خافوا من فتن وبأبي هبيد رجل ما يبيد إلى جناب يكفي عني ما يبيد بأخ عبد الله نجل العمي أي ولد العباس كثير علمي بأخ عبد الله نجل العمراء عن كتاب الميجور الدرر وابن مسعود وجاه بن سلام خن البلا والرهين الوكلام يا ربنا بحرمة العباس وامسلنا في كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنارين بحرمة الخاسم ثم تايري سبي سوائري مقدمائري بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشرى والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لعبسي وبالرقية وزينب كفني أتر والهجاب كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بومي وجل بن نخم بأوسن بن هامر وعرمي وأخ مصروخ انتخب الكلمي وبربي وبجاه الأسود حبل استقامة وخم وودي بعامر بن حابز الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني جلي بالخبران والسعاده والعلم والعمل والعبادة بناصر البسر أبلي الورح والانسلاخ من هواي والبلح وبأبي هريرة وببلال وبسعيب ربي جلي من نوال وتات خبل وسني من داي شرا وجارا بأبي درداي بعرمة المقدار اسم خالدي وبالزبير أولني مخازني وبأمير المؤمنين عمرا خني مكرا وسقا وخررا بحق قائد المجاهدين حلي للسيان الدين بحق سار وبحق عروة شرني تمسكا بأسقى عروة بحرمة القاسم ثم خارجه سني خفى المتبى منايجه ابي بكر وعبد الله سلي فضل المال وبي سليمان اخني كير العين وكير خيري وكل يا معين بمنا خديجة قبل العمل في العلم والأدب والرب والعمل بمنا هائسر يا ما يدرني في الأرضين والسماء بمنا أفسده البين ابد وبينما يجرس أن ونكد قمنا سين بسين ما سار مني وما بدن وجلني وسر بمالك والشافع وابي عنيفة وأحمد للسجب بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي ميكائيل هب لي ونفي جلب سخيس كرما بجاي أسرافيل قبل الإسماء ولتكفني وعلى يوم الخمة بجاي إسرائيل كن يا جميل تلاياتي وكساب بدرين وجعل توسل لمن يدوبي شعر الدارين وخفني بي وليجن وللذي داني لنصمه بالأمن والدوان وبالسعادة وبالنماية عن جملة الأسواء والإناية وبالنجاة من سؤال الوعذاب وسكرات الموت رب والحساب وبالبسارات وبالسرور إن مماتنا وفي النسور وسليا وسلما على النبي وآلي ما سعى بالنجوب واغفر لوالدي واغفر لجميع اهني وجملة سامي يا سميع واغفر لكل سي تعلق بها واخيخا سادتي يا ربي والتب وخبنا وكلنا وابلنا وسل ختام ربنا وسليا على النبي وسلم واخر بها جد كل مسلمين يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء نبرا يا جنتي صلى عليك مني منخرا عما بك علينا ودام نعما وكل ما استقد إليه خادا لك بلا مسخن فانخادا مسلم عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك سلامة من الإساب ومن الملامة وطيب الزمان كما أحب وكفاني سرمد المال ويب وبك لي كان وساخ للعرب حتى سير بزوج من وأرب ونمني لسعب الأمنا وخادني بلا حساب للمنا واتسن بي وغيو بي معها وراد لي كل كنود جمعها وجاد لي بكون سن اسم سبا لي ولي مدعي سوق سبا وكفاني جملة الرسايا بي وساخلي به المسايا فإنه جل على ساق خدير وبإجابة دعاء جدير خاطبته بالشكر والصناي اسفكاني خنفاناي يا من سؤال خيرين دلال إذ لي بكرم الياس الجلال يا الله يا خريب يا مجيب سل على الذي به تجيب سيدنا سي المجسد بالسلام بلال والسعب مساسي سلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي شيخا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي صافية لك به مع الجور دافية وجل به نظمي نظما مرضلا ودخني بجاي سوى الخنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على مسلم رب العالمين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 الناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما خال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقران الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم وجعلنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا ما صرفت فيه من الآيات وذكرنا ما درت فيه من المصلات وكفر بتلاوته عن السيئات انك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سوء او نسيان او تحريف او تقديم او تاخير او زياده او نقصان او تاويل على خير ما انزلته او تاجيل عند تلاوته او كسل او زيغ لسان او وقوف بخير وقف او ادغام بخير مدغم عقب أو صغار بغير بين فاكتبهم منا أهل التمام والكمال والمهزم من كل إرهان وارزقنا فضل من خرأ ومواجنها قوم الأهداء والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تقتلنا بالشر والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا منا من خفلة والكسل وأمنا من عذاب الخبر من سال منكر ونكر من أجل الديدان وبير وجوهنا يوم البعث وآت رقابنا من النير ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسخ ميزاننا بالسند وثبت أقدامنا على السرد واسكنا وسر الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا وجل أحزاننا وذهب خمومنا وقائدنا وسائحنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنسنا في الوحسن وصباحنا في الوحدة وصباحنا في الظلمة ودللنا في الخير ومن في الفتنة واقسمنا به من الزي والأهواء وكيد الأخلاء يا رحمن يا رحيم اللهم اكتب بسعادة آجالنا واخب بزيادة أعمالنا واخرج بنا في دخولنا وآسالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومالنا وصب سيال عفيك على ذنوبنا ومن علينا بسر حيوبنا اللهم اجعل أخواك سعدنا وسخد بك سردنا واقتقادنا وأمن من الجه والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلسا ما خلنا وانظر ما تلنا وحضور سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بل سا ما خرنا ونر ماتنا ولي شيخ احمد بن بخاري رسول اللهم بل سا ما خرنا ونر ماتنا ولي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام والارواح ابائه وامهاته وازواجه وزراته واصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين والارواح ابائنا وامهاتنا ومشايخنا والارواح جميع المسلمين والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد خادم النبي وامام المرسلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب الله سيسران عليك انت كما اثنيت على نفسك شهدت للرب بن صراف عن المبي منك زختراف وقلت بين وبين الدر وجدت لي منك wajitali min ka bi xayri siri laka sukuri ala asmani ya malika malakatani zamani laysa naka siwaka si ya xaydal lamuna ya musin ya rabbana innal wara tadarruhu li awliyaika mahan liyasmahu ilayka ya wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana fakulana wajhlana lutfan wa amna ya ahad ya man taala lam yakun kufan tubaar fa kàll sama xarit bi la say xeetu airport baax na waa jànk foo amee lii xanaa biir social shopping jànk luy social shopping social shopping mooy site en ligne nga xamante ne moo ma jaay yile airport yile airport yu baax base musicale bu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 cliquer vous cliquez, cliquer rek nga 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping d'Al. jaay day